question bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a bokk na ci kii mii kii kii euh, nuñ ko waxeeti waay. qui est mieux. pour Dakar. mooy lu ñu waaw qui est mieux pour Dakar. kan ku gën pour Ndakaaru kan ni moo di file ci diwaanu Ndakaaru. bokk na ci laaj bi nga xamante ne dala sëmp ndaxte ñu baree bari fu mu toll nii daanaka dañoo daan rek maanaam addu wala nekk ci ay jafe-jafe jëm ci li nga xam moo di ba léegi ñu ngi xaarandi nga xam ne moo di seen ay candidat waaye ba léegi mbir mi mujjeegu la antu waaye bu ñu xoolee baax Dakar enjeu bi nga xamante moo fi nekk candidat yi bari lool te wuute loolu moo sabab nag Barthélémy Dias jot naa taxaw Amadou Ba jot a taxaw Abdoulaye Diouf Sarr bokk na ci ak yeneen coalition yi nga xamante ni am nañ tamit seen ay candidat moo tax fi mu ñett ñooñu ñoom la ñu dalal ñeenti ñi sax ak Soham El Wardini ñoom lañ jot a sampaale qui est mieux pour Dakar ci li nga xam ne moo di élection locale moom moo nekkaale seen wàllum caution ci élection locale yi nga xam ne lañu war a amal ci atum 2022 laaj bi nag comme ni mu sampo ay si am ni nga ko gisee qui est mieux pour Dakar waaye nag bokku ci ban tànneef ban façon lañu war a mën a amale li nga xamante ni moo di seen tànneef bien vrai que ñenn ñi jot nañoo déclaré waale candidat bu fekkee sax ne benn bokk yaakaar kese ni moo ci desaale ndax ñoom kese ñoo amagul ku fësal ne candidature am officiellement mais ay sabab lu kese moo ko nekkaat kan moo gën pour Dakar ci sa gis-gis. man <laughs> loo koy laaj ko laaj ko politicien yi. yow mais yow xamoo ku gën pour Dakar. <laughs> moo nga xamee ki gën pour Dakar daal boo gën pour Dakar ndax yaakaar naa comme ni ñu ko waxee. élection locale euh, askan wi ñooy euh, tabb ñi nga xamante ni ñoom lañ bëgg pour seen gox donc euh, gox googu daal nañ leen bàyyee ñu tagg tab ki nga xamante ni moo leen gënal mi am nañu yaakaar ni bu nekkee rek Dakar moo leen tax a jóg comme niñ ko fi waxee. bu nekkee dakaar rek moo leen tax a jóg dinañ def liggéey boo xamante ni pour askan wi la mais pas pour di xiiroog ngaayoo comme ni ñu ko fi tàmm di gisee bon li mu wax nag c' est c' est très compliqué ci ci actuellement ci jamono ji ñu nekk parce que euh, il a raison mu ne ki ki qui est mieux aujourd'hui ou le mieux placé pour diriger Dakar euh, bilaay dina dina dina dina difficile parce que boo xoolee Benno Bokk Yaakaar aujourd'hui boo doon euh, porter le chapeau ci kenn ci wàll wi da nga naan Abdoulaye Diouf Sarr euh, benn bi da koy gis taxawaayam bi mu am surtout ci au niveau de la communauté lébu waaye tam ci yenn ci ay jéego yi nga xamante ni jot na koo def xoolee tey jii ci beneen pegg ba li tax xëccoo bi xaw a gën a metti mais gis nañu euh, yaakaar gi dañ koo jox ki nga xamante ni moom moo di Amadou charisme bi nga xamante ni moo ngi ci Amadou Ba politique bi nga xamante ni moom mun na ko ak mi nga koy incarné tey jii euh, dinañ xam ne Amadou Ba aussi bu tegee tànkam euh, euh, tey jii mën na diriger dakaar parce que boo xoolee ci élection yi nga xamante ni moom la ñu mujjanteel bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon tamit jiitu ci wàllum organisation bi ci kon coalition bu ni mel ba ñu am ci ngañaay kon kooku dinañ am tamit maanaam gis-gis ne mën na tamit téye Dakar au niveau des parcelles Parcelles am na fa tey jii base bu dëgër boo xamante ni am na ko donc euh, tey boo xoolee teg euh, ki nga xamante ni moom moo di Diouf Sarr euh, teg ki nga xamante ni moom moo di tamit ki nga xamante ni moom moo di l'autre ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr donc duel la choc des ambitions baa ngi noonu ñëw mais pour nga départager leen aussi dina difficile parce que ku nekk am nga li ngay peser ak li nga mën a apporter mhm. au niveau ci li nga xamante ni moom moo di parti bi ba ñu war la mën a wóolu ngir jox la Dakar mais nag xam xamante ni moom moo ñëw dugg ci ci laaga gi neen <laughs> wax nag Mame Mbaye tamit euh, xel yu bëri di tey ci ban anam la war a mën a téye ndakaar est-ce tey jii bu ñu xoolee ci li mu jot a liggéey ci ci ci ci passé bi ak yenn responsabilité yu ñu ko jox te it doon nañ ci sàkku ay ay ay ay maanaam euh, lu ñoom wala ay résultat yoo xam te ni euh, dina dal xel mais dalu ci xel tey jii bu ñu fàttalikoo ministère de la jeunesse moom moo ko jiite woon waaye li ñu ca doon wax bëri na euh, lu jëm ci na ñuy jàppalee ndaw yi desoon na daanaka dafa meloon ni amuñu réellement benn ministre boo xam te ni mu ngi mi ngi téye li ñu ko noon doon jox donc ay gàkk-gàkk yu ko sa fekk si Benno Bokk Yaakaar kon boo dee toog donte am na ambition bi mais primo mën nañ ko ci écarter ci warum jiite Dakar d'après man analyse bi nga xamante ni def naa ko mais fii problème moom mooy diggante Amadou Ba tey jii ak ki nga xamante ni moom moo di euh, euh, Diouf saar ku ci nekk am nga potentialité bi nag. man côté boobu man la question que je me pose mooy ci yan parce que bu fekkee critères yi mu wax la. waaw bu fekkee ci critères yi mu wax la. Mhm. man mën naa jàpp ne euh, Amadou Ba. moom mooy nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar au de Dakar parce que bu ñu fàtte ni Amadou Ba moom moo fi nekkoon potentiel maanaam taxawoon pour diligenter Dakar de sorte que Macky Sall amoon élection ci li nga xamante ni moo di atum te amoon nañu ah, réussite donc ci beneen côté aussi bi ñu doon def législature aussi gisoon nañu taxawaay ki nga xam ne moo di Amadou Ba bi ñu joxoon aussi te mu nekkoon auprès de Macky Sall mm-hmm. donc ce que mooy que mooy mmh. que c'était ni niveau de mmh. Dakar mmh. d'une manière générale donc tey bu ñu demee ba ci wàllum tànneef te Macky Sall li nga xam ne jot na ko fixé ci jege ñaaleem bi nga xam ne na ko ci l'observateur barki démb ne ñaar mooy mën a nekk ci tànneef yi nga xam ne moo jëm ci élection yi bien vrai amalagul mooy ki nga xamante ni am na base politique ba taxaw dëgër ak ki nga xamante ni jot naa gagné waaye tam te nee na kuy gagné ku ne kenn du ko changé donc ñaari côté yi bu ñu fa xoolee bu baax a baax dafa mel ni kon wane na am déjà kenn kese lay doon mooy say ki nga xam ne mooy Amadou Ba mhm. leneen li nga xam ne jot na cee fës dama jot maa jaaxal tamit ci benn côté mooy mhm. euh, Abdoulaye Diouf Sarr bien vrai moom moo nekk au niveau de Yoff mhm. donc am na benn gagnant boo xamante ni jot naa jël waale Amadou Ba aussi ci beneen côté bu ñu ko xoolee bu baax mhm. moom amuloon benn yoon taxawal na fa nga xam ne moo di ci Parcelles Assainies mais ñu bari jàpp nañ ne bu ko bëggoon tey mën ko am parce que lu mu réussir au mhm. niveau de Dakar ba Macky Sall gagné en 2019 donc bu ko bëggoon au niveau de Dakar mën na ko réussir mhm. donc est-ce que Macky day jëm ci wàllum test pour xool l'expérience que ça va ou bien Macky day basé ci ce qui s'est déjà produit xam ne mooy maanaam Abdoulaye Diouf Sarr fan yi nag li muy démontrer aussi day gën a fësal que ne ah. dafa mel ne tànneefam ba léegi mu ngi ko teg ci ki nga xam ne moo di Amadou Ba parce que gis nañ ci kanam ne am na luy waaj xew yi te mhm. lii ak lii lay war doon peut mhm. sama gis-gis bu gàtt laay wax parce que mhm. bari la wu ma gis-gis beneen bi nga xam ne bokk na ci mooy bi ñu gisaate même Dubai Expo bi tamit gis nañu encore Amadou Ba à ses donc yooyu noonu yëpp am loo xam ne dina ko fësal et comment Amadou Ba aussi peut avoir le courage ba ñu ne mu ngi génn au niveau de Dakar mhm. dem mel ni kuy defee ji campagne ci élection 2022 ñu dëgg man mhm. mhm. yooyu yëpp ay ponk yu bari te wute la Rose te yaakaar naa ne mën na nekk lu déterminant ci choix au niveau de Dakar. waaw comme ni nga ko waxee rek Babacar. je pense que bul fàtte bëgguma benn problème. maa ngi ko tayal li ñuy sànnante xeer. donc euh, ki comme ni nga ko waxee rek Amadou Ba dafa mel ni jamono bi moom la ñu bëgg a imposer au niveau de Benno Bokk Yaakaar ndax boo xoolee mu ngi gën a firndeel euh, jege bi nga xamante ni jege ko ki nga xamante ni mooy président Macky Sall wante euh, sànq ni nga ko waxee rek Abdoulaye Diouf Sarr peut-être côté expérience bu ñu xoolee moom mhm. am na opportunité nekk maire ba pare jiitee foofu nga xamante ni mooy yoof mhm. peut-être foofu mën nañ ko laam-laamee tuuti mais mooy man je pense que Amadou il a les pour yoon ville de Dakar bu fekkee ni Benno Bokk Yaakaar moom la jël samp ko teg ko beneen côté bi mooy ki nga xamante ni euh, mooy Barthélemy Diaz moom tamit euh, ñu bëri jàpp nañ ni euh, mérité na yor li nga xamante ni mooy ville de Dakar donc Babacar instant bi nag xam nga ku nekk mën nga xool expérience nit ki wala li nga xamante ni mooy ay ay ay ay ay plan wam ak ay souhait pour développer li nga xamante ni mooy ville de Dakar mais ni ñu koy waxee rek. le dernier mot revient au peuple donc carte yi rek fi mu ne nii sénégalais yi ñoo mën ah tànn ka nga xamante ni moom la ñu bëgg euh, mu jiite leen ca gox yi nga xamante ne ca la ñu dëkk donc que le meilleur gagne que le meilleur gagne ah, le meilleur gagne ak ki nga xamante ne tamit dina mën yor gox bi waa kii waaw ah. parce que tamit benn côté bu ñu xoolee tamit ci côté Yewwi Askan Wi problème boobu moo fa nekk parce que ñu bari dañ jàpp très bien bu ñu xoolee dañu ne woon Khalifa Sall mhm. Mhm. xam nga ñu bari bari dañ ne des sénégalais maanaam les Dakar waa wala boog les Dakar waa la dooree te Ndakaaru moom la ñu opté woon seen choix ci moom est-ce que choix bi ni mel nag mën naa toxu si ci Barthélémy Diaz mhm. ça c'est la grande question qui doit se poser parce que tamit tey Barthélémy Diaz quoi que l'on puisse dire bu ñu demee tey Sacré Cœur Mermoz ñu bari jàpp nañ ne jot na faa lu tax mu war a mën a am mérite pour jiite li nga xamante na ba au delà même au niveau de de Sacré Cœur Mermoz tax taxawalin bi nga xamante ne am nañ ci li mooy ci wàllum doxalin ci biir gox mm-hmm. bu fekkente ni jëm ci wàllum njàng mi la gis nañu yëngatu bi nga xam ne mu ngi ko ci am parce tamit politicien acte bu mu posé bien vrai c'est pour magnifier ses <laughs> mm-hmm. actes politiques mm-hmm. gis nañu sax li xewoon au niveau de Wakam aussi que benn taxawaay bi nga xam ne amoon na ci day génn sax biir zone am pour mm-hmm. ñëw et ñu gis tamit ne maire la boo xamante ni quel soit lu warte mën a taxaw am na taxawaay wala xeex boo xam ne dina ko juddle ci kanam donc moom aussi mën nañ jàpp ko ne potentiel candidat la pourquoi nag ñuy citer les trois kese parce que day nekk ñaari a man jàpp naa ne candidat bi war a gagné au niveau de Dakar ci ñett ñooñu lay doon mooy entre Barthélémy Diaz Amadou Ba wala Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. qui est pour Dakar nag tontu bi Oustaz. <laughs> non ci yow laa wax yow sa gis-gis yow. nga pour semi kotaan tamit doo bàyyi tool. waaw mais doo man Oustaz waxuma yàlla interroger ma yàlla de yow nit yow foo ne yow foo nekkul waaw ma ne la yow entre Abdoulaye Diouf Sarr hmm. Amadou Ba ak hmm. Barthélémy Dias yow ci sa gis-gis yow ku gën pour Dakar <laughs> waxuma la xam-xamu yàlla sax gis-gis yow laa la laaj Dakar la gis-gis yow de la léegi pour loo fi def eh pour yow ko waay en tout cas daal moom naa ko. fëggal see bi. monsieur le maire. monsieur le kii monsieur yow de yow de bu la bu la bu la kii déggee. nu mu bu la amee dégg amee ndoy. dégg naa démb moom ak seen maire dañ doon xeex amee ndoy. waaw wóorul mais am na. ñoom ñaar dégg naa seen xeex bu métti <laughs> métti démb. yàlla may na la nag. comme mu nekk góor yaa ngi moom nekk na la loo ci a lal der <laughs> donc mu ngi noonu Aïcha Thiam donc benn choix la boo xamante ni dina métti lool ci les aux yeux des sénégalais donc ñuy xaar tey jii nag le vendredi mooy nekk choix wu ñi nga xam ñoo yeewi askan bi Barthélémy Dias bokk pour ñoom ñu désigner kan mooy nekk seen candidat au niveau de de Dakar ci loolu nag am leen loo xam ne jot nañ ko tranché déjà moo di élection locale yi maanaam décret bi nga xamante a fixer nombre de conseils au na ci àdd ba noppi euh, moom moo jël sax nag raw gàddu gi ci wàllu yi am lu toll daanaka ci maanaam 280 conseils yi nga xamante ni am na ko ci lu mu wala am donc mm-hmm. yeneen yëpp nag jot nañ ko fësal ba noppi xam naa ku ci gën a bëgg lu leer rek mën ngaa dem yëri ji mm-hmm. seneweb point com d'accord am na am na solo bu baax a baax a baax ñu dem xooli euh, ñaareelu ponk bi day desandi ci élection yi wala fu mu jëm. waaw dañuy dem Madinatu Salaam. Hmm. waaw Madinatu Salaam soxna Aïda Diallo. Ah, donc waaye fàttali ni nit ñi. Euh, Pastef mi ajoon ay koogam. waaw waaw ci yeewi ne wàccee na wàccee na. <laughs> nee na nag pare nañ ngir ñu buux ci fonde bi xaw ma la. <laughs> waaye am na lu muy demee ne tey ca ngoon ñu ajaat seen i waaw loolu tamit mën na ci nekk. am demee Aida. tey koo gi dina ndax yaakaar naa choix bu nekk am nañ consensus. parce que non je bien que ni. Mhm. man nag benn côté am na sax ku mu koy xaw ma nag. Mhm. sama gis-gis bu gàtt laay wax. Mhm. parce que Pastef Dakar man xaw ma jëbi lan la carrément. parce que Yewwi Askan bi mënuñoo toog di waxtaan di toog di waxtaan ba mu des presque ay quelques jours yu ndaw. yu gàtt ñu gis ne dañoo suspendre li nga ci ni moo nekk seen seen seen ay activité au niveau de Yewwi Askan bi. pour quelle raison. parce que ñoom ba léegi joxe gu ñu raison yoo xam ne mm. explicite la war a mën a xam mm. mais pour quelle raison après bu ñu dellu si tamit pour quelle raison mm-hmm. mais je pense que c'est mieux quel que soit raison yi ñu taxoon ñu dem mhm. raison yi tax ñu dellu siwaat man dama mhm. jàpp ne c'est mieux pour ñoom parce que bu dul dara dul dara sax la mu mën a yàq ak la mu mën a tas ci biir Yewwi Askan Wi moo ëpp fuuf ko la mu mën a defar est bi euh, euh, mu juddoo opposition bi loolu la waxoon ñii duñu mës a déggoo et ils pas encore prêts te man jàpp naa ne ba tey coalition Sénégal yi pareeguñu parce que boo xoolee ñi ñi nga xam te ñoo féetee ca PDS euh, tax Sénégal euh, c'est la même chose ñu ngi tojante bokk bokk bokk gis-gis nee na d'accordul euh, ci euh, PDS bi nga xam ni mu ngi imposé sur 46 yi yu ñu war a tasaare ci candidat fii moom mu ne 43 ya la bëgg. Mhm. tamit mbir moomu tam yanuwul maanaam. ci ci moom li lépp lépp laay jël mhm. nga dem yeewi yeewi tam ne waa Ousmane sonk dañu bëgg ñoom tam toog seen diggu bopp bi. parce que d'accord nañu ak waa taxawu Sénégal ci li nga xamante ni moom moo jël ci candidat yi nu ñu koy wasaare ndax bëgg nañ ñoom tam fenn fu ne ñu teg fa seen ay ay candidat donc balance bi di gën a euh, ajoo ci ñoom di di daanoo ci ñële du coup foofu noonu amul équilibre bu fa am eh, est-ce que nekkul ne problème bi fu muy taxaw mooy euh, c'est-à-dire les yi nga xam ñoo nekk au niveau des coalitions dañoo bëgg jël maanaam seen poids di ko mm-hmm. imposer ci biir coalition bi alors qu'ils ont dem pour di nekk ne équilibre na fa dox. Ah. est-ce que nekkul man dama jàpp ne problème bi foofu la nekk. Ah. parce que soo nangoo composer ak nit ñi. Ah. il va falloir que quel que soit tollaay boo war a mën a am. nga wàccee sa bopp ba leeroo ak ñoom. Mm-hmm. mais léegi nag soo bëggee composer ak nit ñi ba pare bëgg a jël sa poids di leen ko imposer ci suuf. mais loolu tuddutul ànd quand même mm-hmm. mais li muy tudd mooy que da nga ñëw pour bëgg a ne yow fii yow rek yaa fi war a mën a laax. te mm-hmm. nag bu fekkee PDS ni mu bëgg a laaxee noonu soit lenn rek moo war a mën a judd laax bi nañ ko boole tour mais kenn mënul lekk ba 46 <laughs> département boo bëggee jël les 43 d'après information yi ñu joxe xaw ma ndax nag si c'est vrai ou non parce que a jël loolu moom mooy niroog am nañu daal ay koy duñ <laughs> naa nee na bu compliqué. <laughs> am na xibaar bu sampente ndem Sébikotane lépp lu fay garab da koy daane. xam nga loolu mënul neex askan yow de li ñu koy gàngal baaxul maanaam safara la <laughs> jaxal na ma la fay saxal <laughs> ñoom ñaar ñoom ñaar ànd di moo tax nangu cee wax xam ñu dem xooli ñaareelu rénkum bi xam nañ lépp bisimilah donc ñaareelu rénkum bi mm-hmm. Aïcha Thiam ñu dal ko rek euh,